keneen amu ko fi de. déedéet li ngeen am ci làmb ji. Hmm. keneen amu ko fi. et vous êtes des privés nañu waxante dëgg rek te yàlla tax. tout récemment notre dojo national. Hmm. dañ ko màbb. dañ ko màbb. Hmm. amatuñu dojo national à à à cet instant bi may wax yow. Ah, présidence. te président yëpp jaar nañu fa bàyyi ñu fa. amu ci kenn ci ñun koo xam ne kii mos nga franchir les grilles du palais présidentiel. y' a formé autant de champions. ñoom Habib Gueye Jonas Cissé. Xavier euh, euh, Boissy. Abdoulaye Djiba euh, Abdoulaye Coté. ñoo Ismaïla Ndoye ñoom Mohamed Dione Jean-Marie Badiane ñooñu. man mi fa laa amee suma ceinture noire judo fa laa amee ceinture noire karaté. j'ai défendu les couleurs nationales ñooñu ñi ma la si limal yëpp ils ont défendu les couleurs nationales. mais amu ci kenn koo xam ne kii sama waay aujourd'hui l'état sénégalais defal nañ ñu ñaar dërëm li ngeen am kenn amu ko. mooy arène nationale et vous êtes des privés. Mhm. defal nañ leen arène nationale privé ngeen. Mhm. kat ñan ñuy gagné ci làmb mbër mi promoteur bi télévision bi diffusé. Mhm. année bii ñu génn nii rek le judo a engrangé 37 médailles d'or à travers le monde 37. li may wax si vérifiable tout suite. te kenn recevoir waaye recevoir ñu ngi ñu mabb suñu euh, dojo national bi nga leen recevoir ñu mais loolu nag loolu nag laaj na taxaw seetlu. parce que tamit lii muy wax nii vraiment lu ñu. war a lu moo tax dama la bëgg a wax rek ne joytu nañu ba sonn dañ ci mënul dara. Mm-hmm. mais ñun suñu discipline. ci suñu aar yi ñuy pratiquer permettre ñu ñu génn ci mbedd mi di yuuxu wala di def naka sa dul noonu. Mm-hmm. on ne peut pas se comporter comme ça ñun suñu compétition de danañuy commencer compétition à 5 heures ay 4 heures du alkaati du fa taxaw gendarme du fa taxaw policier du fa taxaw. Mm-hmm. ñu pare ku nekk ñibbi tranquillement kenn du toj dara kenn du yàq dara. Mm-hmm. fu nekk yëkkati nañ fa hymne national. te hymne national kan moo ci am droit président de la république ak sportif bi am médaille d'or. Mm-hmm. jeex na du keneen. bon bu loolu amee yëpp ñun waxuñu sax dara mais au moins bu la président takkalee fii benn médaille. boo demee ba jëmmi jamono nga ne sa doom wala sa sët ah kii président moomu ko takkaloon jeex na ñaanuñu oto ñaanuñu kër ñaanuñu xaalis mm-hmm. amuñu amuñu stade amuñu dose nationale bi ñu amoon benn hangar la ñun ñoo ko modifié ça c'était les années combien mm-hmm. voilà ñu ngi nii tey le judo existe au Sénégal depuis 1963 astafirullah 61 li ñu fi def ci résultat kenn defu ko fi. nga jël au karaté. bu gën boobu la ñu waroon taw par dogal karaté boo leen dénombré tey ci karaté on a plus de quatorze champions du monde kenn ci mosut à Yaay Ami Seck Abdou Diouf a ko recevoir recevoir oon euh, euh, euh, Souleymane Ba Diallo Abdou Diouf moo ko recevoir oon ba après ñaar ñaar ñooñu Abdou Diouf recevoir. keneen recevoiruñ ko fi ci ñiy def arts te on est là pour défendre les couleurs nationales du xaalis benn boo il y a quelques années de cela le gosse qui est champion d'Afrique de karaté tuuti lañ koy ooyee apprenti tailleur mu nga fa la gannaaw raay dañ koy tegal dagal ko moom muy dagg di kii apprenti tailleur danañ ci def benn reportage incha allah il est champion danañ ci def reportage bi. voilà li may wax ne. Euh, ah non non non. je le dis ba ba mu amee ba mu amee ba léegi bu mbaam gàtt yi ci jur gi la bokk. la bokk waaw on n'imagine pas imaginer wu loo. xel mi am toj ko war na am xel mu defal beneen bu gën a fuuf doo ko toj. États-Unis du ñu dem au championnat du monde sans leur basketteur sans leur boxeur sans leur coureur de vitesse sans leur nageur. Mm-hmm. mun nga ne États-Unis la Kenya bii. du ñu dem au championnat du monde wala Jeux olympiques te ñu seen coureurs yi les coureurs de fond mais le Sénégalais est né combattant. waaw kenn jàppale wu ñu ñaar dërëm yéen yéen a ngi ci laa wax. vraiment waaw te defu leen plus ku nous. kon ñun ñu ngi ci jàmm ñuy ñaan jàmm ji yàlla yokk waaw ñuy ñaan jàmm ji yàlla na te yéen it yàlla def ñi ñi ne xamante ni ñoom la ñu dénk sport bi. Uh-huh. ngeen nekk aussi tamit maanaam taxaw naa fekk benn boo xam ne bii maa ngi bugg a tàng nag ñu taxaw benn ministre boo xam ne bii dafa ne waaye seen say yow da nga am mm-hmm. un amour viscéral mm-hmm. pour les arts martiaux ma ne ko dañ def lu kenn deful dëgg la vraiment vraiment mu waa ci naka ma ne ko bis euh, basket mm-hmm. qualifié deuxième tour fii au championnat du monde ñun ñun ñu ngi doon ñu ngi doon xëccoo médaille de bronze au championnat du monde ki qualifié deuxième tour rek ak ki ak ki ñëfe médaille de bronze kan moo jiitu comme combien de champion du monde on a mun a ma ne ko eh, mu ne ma trophée bu ngeen am boo xam ne bi jarul sax deux cent mille francs alors ci football bu ñu ñooy indi ñu ay milliards ma ne ko am na mbetteel trop. ak gàcce. football xaalis bi mu indi sax da du xaalis dara ci réew dama yaakaaroon ne ministre des sports dafay nekk ministre xaalis bu ñëwee sportif quoi ah. vraiment ñu ngi ñaan yàlla def ci saafara vraiment Lamine di la nuyuwaat di nuyuwaat suñu père yi bu baax a baax yàlla loo mën mu balaak moom waaw dëgg la ah. dëgg la ñi jiite mbir mi daal nañ ci jël ay matuwaay parce que lii mu lii mu développé nii. lii lu jar a siiwal la. tey it lii laaj na tey plateau. incha allah boo xamante ni tamit dinañ def njàngat. incha allah jóg ci le plus rapidement possible. Lamine daal vraiment euh, ñu ngi remercier ñi ñu doon seetaan ñëpp. di leen remercier waat nuyuwaat yi. ci confiance bi di leen sant di leen gërëm. muy suñu papa yi jërëjëf. ayo Père. ok. Père Dia. am benn gi nii. <laughs> Père Dia waaye. dellu santaat yàlla rek. di gërëm borom kër gi di ko ñaanal scène bi yàlla nekk grand écran amin incha allah. àdduna bépp di ko seetaan. dans le monde waaw. di gërëm euh, ñu ma bokkal plateau bi suma magkat yi yow moom du Lamine di xale bu set loxo soo setuloon loxo bonoo du ñëw wallaay la suñ du ñëw di gërëm CNC suma mag suma xarit kanji sama frère sama waaw danga ko baax maa la gën a bëgg. maa la gën a bëgg. président ngi kontaan mi ngi ni mu ko war a défendre. Mhm. ah di di nuyu axlu làmb yëpp nag. Mhm. mbër na activité ànd na activité yëpp ñu ngi leen di nuyu di te xam ne lii ñu toogee fii di ko wax defar rek lañ ci jublu. Mhm. defar rek lañ ci jublu wax nag moo gën a yomb dégg-dégg. mais dégg-dégg la nit ñi war a defar ba mu baax ñu ñu koy wut fi ñu koy teg di ko classé mm-hmm. dañuy ubbi noppi waaye di am dégg-dégg ak gis-gis képp ko xam ne wax nañ fi lu la gaañ rek nangu nu jégal te xam ne lu baax dong moo taxu ñu téye micro yi di wax mm-hmm. lu ci dëng sunu mat di la lu ci jub sunu borom la te ne ministre sport sports moo jaboote tous les sportifs mm-hmm. lu toll na dooso bu ñu ko màbbee war nañ leen wutal ñuy dooso nañ leen wutal dooso mooy dëkk. dëgg dëgg xam nga fu ñu yóbbuwoon jëm ñaajo. waaw ah. jëm ñaajo ñu yóbbu fa def fa dooso national xanaa mooy judo dee na Sénégal du yoon c'est pas normal du dëgg du yoon. li bu lay ngay xam ne ki lay représenté da nga ko war a delloo da nga ko war a jox wàccuwaayam. dëgg la mais kon léegi sport ban njëriñ la bu ñu la fëree nga nekk euh, ministère sport. jërëjëf sportif yi nekk di jooy guddi ba ci te mënoo leen défendre fenn la mooy sa njëriñ moom kay moom kay kenn mën dox lépp. ah yal na yàlla jàppale si suturaal te kenn ku ne xam sa rôle. père Gati. waaw mais namu nañ càmp ah càmp. càmp càmp càmp wala jàmp. Ah, ah. <laughs> eh, laa ko tuddee ñëpp di sant ñëpp. wax dëgg yàlla Côte Sou dañu leen di masawu. Eh, maa ngi suivre suñu panel. Boun Daouda Dione eh, dégg nga Boun da Diop. donc foo wax na si lu nekk. waaw bind na su lu ne na fu ne lu nekk lu nekk si moom laa suivre lépp affaire bi di début à la fin bu ñuy laa avant ñuy commencé ba bañ koy ba buñ koy daaneel lépp vraiment lu lu métti la lu doy waar xaw ma naka la ko nit mun a imaginer di di di def jëf jëf gu ñaaw ba mais jëf gu ñaaw la na xaw ma nag naka la état mun a seetaanee lool waaw ah di profito rek di gërëm kañ yi wax dëgg la yàlla dafa nekk si làmb mu defal ñu ñun ñun représentant di Cap Vert. Mm-hmm. ñaar ñoo ñuy dimbali. waaw Kandji mi ak Doudou Diagne Diécko. Mm-hmm. dem jëli ji drapeau sur l'état. dëgg la amul Dakar lu muy toll yëpp ak ñi fi nekk ñëpp. Kandji mi mooy Kandji mi ak ak Doudou Diagne Diécko ñooñu. ñooñu jàppale te ñu ko jëmaat Mbour te la même chose mooy mooy amaat rek dañuy dem pour pour rien. ñu foog ne nag ñu foog ne Dakar nag jàpp Dakar jàppale nañ leen. te jàpp te jàppale ñu leen ban mois la ban mois la ah.

sama mbokk promoteur yi man xam nga ancien laa. waaw damay waxtaan ak ñoom. ancien nga waaye am nga rakk buy tëgg. Ah si si man kay bëri naa ñuy tëgg. waaw. nañ def ah. hmm. man maa ngi ci depuis 16 décembre 2006. Hmm. ba tey ma nekk ci su ma ci waxee dara. waaw bu arrangé góor a su ko arrangé presque vingt ans d'expérience ñoom ñi ngi franchir palier boo xam ne bis buñ ci àggee du baax ci ñoom. Mhm. nañu arriéraat te jéem a déggoo te wàññi coow li ak istoire bi. Mhm. mën nañuy defante sax ci suuf ndax loolu nit ñi xamaguñ mais bu bëggee jëm kaw day danger. Mhm. mbër bu mu boole benn promoteur ak benn kuy tëgg na ko sa morom bàyyi keneen dem tëgg kële. CNG. mesure la boo xamante ne lii may wax ak yow war na cee mën a jóg mën naa tere mbër jël combat yu bari mën na ko tere. Mm-hmm. mën naa ne góorandoo yi su ko kànji tëggee fee góorandoo yi deuxième face to face ba seen contrat jeex kenn amul droit tëgg. bu boobaa est-ce que CNG dina mën a intervenir parce que ñoom nee nañ combat bu ñëwul CNG rek concerné wu leen. xam nga tey dafa am loo xamante ne bii depuis cinq ans moom la ñuy dégg. Mm-hmm. mooy combat bu ñëwul CNG. mais su fekkee xam nga règlement yi. ay jinne defaruñ ko. ay nit ñu koy def ah, gouverner prévoir. Hmm. dafa am loo xam ne soo ko defaree ba dem ne li ma defaroon am leen luy commencé di bëgg a yaaxaat dama cay yokk loola. góorandoo yi mi ngay tëgg te ba pare loolu li koy gaawal mooy góora su tëggee kaañ yi dañ ñaan ko semaine bii doo ci day face à face bi ci nga koy def mu jeex bu pare yeneen promoteur tëgg ko. Hmm. moo gën coow li ak xiiro bi parce que day indi animosité ci suñu biir te jëru ko. Hmm. xeex bi. ku ciy daw da ngay mbëkk te ku mbëkk miir promoteur ay mbëkk sëb jee tepp mhm. boo gisee ku la jox coton nga fomp boo gisul sa yére nga koy tomb mhm. te loolu du leen jig ñoom ñëpp. du leen jig ñoom ñëpp. nañ def ndànk rek. macha allah loolu la Martin Luther King doon wax. apprenons à vivre ensemble comme des frères si sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. macha allah waaw. cameraman yi waaw ñu ngi leen nuyu bu baax waaw dama nekkoon ci acam jaaykatu daal mu ngi nekk fële ca Ngor Pape Modou gis na suñu waay moom boole moom Pape Modou bu Lutte TV numéro téléphone mu ngi nekk 77 380 99 97 VDK la boutique de l'élégance mu ngi fële Nord Foire moom tamit moo ma jox sañ-sañ bi ah, waaw kon baax na VDK numéro téléphone bi Xaadim VDK mu ngi nekk 77 887 27 27 di kontaan si ñëpp di baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq di leen jox rendez-vous jeudi incha allahu rabbi ci beneen émission Père Tapha Guèye nag namm nañ ko ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar peut-être jeudi bi di ñëw dana ñëwaat ah. jërë ngeen jëf ñu seetaan publicité ñëwaat wala boog pare